Ada Boy Baol arbitre bi sifflé na moom it premier combat Ada Boy Baol ci compétition bi mu ngi noonu premier combat Ada Boy Baol mu ngi noonu ci compétition bi Franc daan na premier combat am Doudou Sané daan na premier combat am Boy Faye daan na premier combat am Ada Boy Baol premier combat ma ngi nii Toubacouta daan na premier combat am ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu Ada Boy Baol yëkkati na ko door ci suuf eh. Ada Boy Baol Ada Boy Baol daan na premier combat bi ndeysaan Ada Boy Baol daan na